jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyu rafetlu ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ngir informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew tey seen acte du jour dañ koy daal di doore ak couple Mabo muy No Face ak Mia ñoom nag daal di nañuy divorcé ni ki démb nag la ñu daal di jot bi la information ki ko fësal nag di kawteef loolu nag daal di nekk ab divorce boo xamante ni tukkee na ci ñaari artistes yi nga xamante ni ñoom ñaar ñoo doon amal ay duo ñu daal di leen di ràññee bu baax baax fii ci Sénégal mu nekkoon tamit ab couple boo xam ne sax exemple la ci ni nga xamante ni sax noonu la ñuy doxalee ak entente bi nga xamante ne amoon na ci bile couple waaye nag mu mel ni loolu lépp daal dinay naxsaay gannaaw ba nga xamante ni annoncé nañ ab divorce ci diggante bi loolu nag bu ñu sukkandikoo ci kawteef mi fësal bile information mooy xam ne sax ne li waral bile divorce am na sax ab audio boo xam ne dafa daal di fuité bokk na ci sax kii di yam ya doon na ko dund ci néegu sëyam loolu nag gannaaw bañ ko àppe rek muy wax sax ne mu ngi toll ci juróom benn at muy dund li ni mel ni ki dem nag ci lañ daal di bi les information di xamle sax ne kii di euh, Mabo ak mu nekk sax couple Mabo kii di Nofees ak euh, Mia daal di nañuy divorcé wax ci coowal Wally Balago Seck Bambali Mandiaye Seck ak kii di Keba Seck loolu nag gannaaw ba nga kii di Mariama Ndiaye ak Bambali daal dinañu rejoindre rek label bi di Subatel Music label boobu nag ñenn daal di jàpp ne ab concurrence sax moo am seen diggante ak ñi nga xamante ne moom moo di Faramareen Music naka la Bambali nekk cousin ci Wally Ballago Seck ak Mandiaye mën na signé ci bile label ci loolu nag gisoon nañu kii di Keba Seck daal di génn def ab sortie di wax sax naan xale yi amuñu kilifa loolu nag mu jëmmal ko ci ki nga xamante ne moom moo di Wally Ballago Seck ak ñooñam waaye nag nag bokk na sax ci lenn loo xamante ni jot na ko fësal euh, muy nekk sax ne euh, gëj na dégg Wally Balago Seck euh, lendemain génnub àdduna kii di Papa Thione loolu nag daal di nekk loo xamante ni gannaaw ab information boo xamante ni sax daal di nañuy fuité ab laaj sax di samp ndax Wally Balago Seck dafa daal di rek am jiixi jaax ak ñi nga xamante ne moom moo di famille am ak déet loolu nag lay daal di nduru gannaaw ba nga xamante sax gisatuñu woon ñi nga xamante moom moo di di ay frère am nekk ay cousin am ci kaw seenam euh, daal dinañuy sax signé ci beneen label boo xamante ni euh, mën nañ jàpp ne euh, concurrent lañu foofa nga xamante ni moom moo di Faramaren Musique waaye nag Wally Ballago Seck gannaaw ñu invité ko tey foofa ci Zik Cheikh Sarr daal di koy dalal loolu nag bokk na ci li mu daal di waxtaanee nag moom Wally Ballago Seck mu nekk tournée yi nga xamante ni mu ngi koy wàcc jamono ji bokk na nag yoo xamante ni sax war na jeexal ci mois de septembre bi waaye tamit. annoncé ne euh, bu jeexalee yi lay tourné euh, dafay daal di rek def pause boo xamante ni sax ñaari weer lay toll euh, laataa muy reprendre rek ci weeru décembre waaye nag ci daje boobu sax ak Cheikh Sarr di Viviane daal dina koy woo appel loolu nag jëm rek ci li nga xamante ni sax ñoom ñu ngi koy wàcc moom Viviane Chidid ak kii di Dip Doundou Guiss mu nekk ab concert boo xamante ni ñu ngi ko fas yéene amal la 3 septembre waaye nag lenn luñ ci mën a jàpp rek mooy kii di Keba Seck gannaaw soxteem boobu nga xamante defoon na ko foofa ca ITV ah, wax na ci ni nga xamante ni sax noonu la ñenn ci ñi nga xamante ne ay faramaaren sax lañ leen jàppee di doxalee muy Bambali Mandiaye Seck ak kii di Waly Balago Seck ah, di fësal sax naan amuñu kilifa ah, ndax kat dafa mel ni ñoom xale yooyu dañoo daal di jël seen yoonu bopp. ci leneen la ñuy wax muy kii di Ndeye Gueye ak borom këram di Papa Boy Djiné ñoom ñàkk gannaaw ba nga xamante ni ñu ngay wéy rek di dund seen amour di waxante yu gannaaw ba nga xamante ni sax dal dinay amalaat ab interview rek loolu nag bokk na ah, ci di wax rek lépp loo xamante ni ah, kii di Ndeye Gueye mu ngi ko koy defal ak fépp foo xamante ni daal dina ko fay taxawu ah, dem ci sax bay wax naan bis bu demoon ba bett Ndeye ak beneen góor du tee day wëy rek di ànd ak moom ndax fi ñu jaar moo tax loolu nag nekk ay propos yoo xamante ni kii di Papa Boy Djiné daal dina koy yëkkati feddaliwaat kóllëreem bu baax a baax ci soxnaam si di Ndeye Gueye waaye nag Ndeye Gueye gannaaw ba nga xamante invité nañ ko ci benn plateau de télévision euh, moom nag daal dinay delsi ci li nga xamante ni moom moo di problème euh, Keba Seck ak euh, ki nga xamante ne moom moo di wali Balago sek moom déggee nag daal di fësal rek di wax sax naan ki nga xamante ne moom moo di Keba Seck ak ñoom wali problème de famille la kon nag kenn waru cee wax ndax ku ci dugg yaa ci des ndax moom moomu di ndéggee nag teew na ci soirée Keba sek ba taay waaye nag lenn rek mo am ca bile soirée fu Keba Seck nekk di ko wéyee rek ah, daf koy daal di jaarale ci Wally Balago sek ak sax ni nga xamante ne ah, noonu la Ndeye di dundee ak wéykat bi di Wally Balago Seck kon nag mu jàpp ne ah, problème amul ci diggante kii di Keba Seck ak ki nga xamante ne moom moo di Wally Balago Seck moom Ndeye nag di gën a rafetal rek di gën a rattaxal sax diggante boobu nga xamante ne moom moo di famille Seck ak sax coow li nga xamante ni jamono ji nemmeeku nañ ko bu baax a baax ci diggante Wally Balago sek ak i cousin am beneen ub coow muy kii di Yaa Awa Rassoul ak Sidi Diop ñoom nag gannaaw ba nga xamante ni sax jamono ji ku nekk mu ngi wax rek ci seen diggante mu nekk sax Yaa Awa Rassoul Sidi Diop ak ki nga xamante ne moom moo di Omaro waaye nag kii di Yaa Awa xaarul dara ngir daal di génn rek def ab vidéo muy wax sax naan moom lébu pire la du wor te sax du fen loolu nag nekk ay kaddu yoo xamante ni daal dina koy yëkkati mu mel ni sax kuy tont rek ñi nga xamante ne ñu ngi dëkkee rek di nekk ci bi. bi di wax sax wàllum trahison wala sax wor euh, jëm rek ci ki nga xamante ne moom moo di euh, Sidi Diop. Cheikh Bara Ndiaye la ñuy waxtaanee lu métti moom moo ko daal di dal ab euh, mën nañ wax sax rakku papam moom moo daal di génn àdduna moom Cheikh Bara Ndiaye nag borom fajub cosaan gannaaw muy doox bi émission rek daal dinay jaale famille bu baax a baax waaye tamit yëggal sax nit ñi ki nga xamante ni génn àdduna la mu doonoon ca moom mu nekk sax rakku papam ak sax la mu représenté woon yëpp ci moom moom Cheikh Bara Ndiaye nekk foofa ca Walf Fadjri xanaa rek di ko jaalewaat bu baax a baax. yàlla yërëm ko te xare ko aljana kii di Pendo Guissé dafa daal di mer ba futt lool lool nag dara waral ko lu dul rek ah, son bi nga xamante ni sax génne woon na ko dal di koy clip àndoon ci ak kii di Chérifou ah, mu daal di koy duppe woon sax jaral nga ma mu mel ni nag son boobu ah, ba mu ko daal di posté ci YouTube rek am na lu toll ci trois millions de vues ci espace bu ñaari weer rek waaye nag dafa daal di xëy rek gis ñu daal di supprimer bile son ci compte YouTube mu loolu nag daal di koy métti lool waral sax di génn rek def ab vidéo di dànkaafu di artu rek ci loolu nga xamante ni sax xëy na rek gis ñu def ko ak sax percé bi nga xamante ne bi vidéo defoon na ko amoon sax lu toll ci trois millions de vues en l'espace de deux mois loolu nag nekk loo xamante ni métti na bu baax a baax kii di Pendo Guissé mu nekk ab vidéo a xamante ni mu ngi ci àndoon ak kii di Chérifou kii di ci internet bi loolu a bokk na rek ci di wéy di publier nañ ko mu daal di publier waat rek ay photo euh, ci li nga xamante ne euh, moom moo di page Instagram am waaye nag keneen ku daal di ay photo ma euh, nekk koo xamante ni tamit mu ngi affolé la toile muy Moli Fatima nekk koo xamante ni tamit internautes yi ngi koy suivre bu baax a baax bés bu posté rek ay photo mu nekk koo xamante ni tamit daal di nañ koy bëgg ndax sax saa yu posté ay photo rek dañuy gis ne dafay daal di bëri ay commentaire ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy safo bi yoon moom la gis noonu ak sax ensemble Euh, sol bi nga xamante ni euh, moom la daal di sol rek euh, posté ay photo yu s kii di Mame Gor Diazaka daal dinay mer ba futu lool jëmal ko ci leader bu Pastef bi di Ousmane Sonko loolu nag doore ay kàddoom rek di wax sax naan kii di njiit réew mi di Macky Sall bu mu nangu benn jeune di manipule ñi nga xamante ne moom moo di askan wi jëmal sax ci ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko mu jàpp ne mënul gérer sax fenn waxuma la ak naan day doon président de la République bokk nañ ci présidentielle 2024 euh, muy Khalifa Sall ak kii nga xamante ne moom moo di Karim Wade wala sax euh, Malick Gakou nekk ay candidat euh, foofa ca élection présidentielle ni ki 2024 muy wax sax naan dégguñu ñooñu benn yoon nañu génn rek kon lan moo tax kii di Ousmane Sonko di génn ci internet bi fu ne rek mu toog fa di wax mel ni moom rek moom mooy candidat loolu nag mu jàpp ne sax ne leader bu Pastef bi dafay daal di wéy rek di manipuler ñi nga xamante ne moom moo di sénégalais yi Pape coow li nga xamante ni ah, jamono ji rek ñu ngi ko koy toppee bokk na rek ah, ci di wax sax naan kii di njiitu réew mi moom moo daal di nekk rek ci ginnaawam ah, dooleel ko ci campagne am ba mu daal di doon ab député waaye nag njiital des serviteurs du jóg rek ci di wax ne moom mooy demal boppam te lépp loo xamante ni rek politique la engagement personnel am la kon nag yenn kàddu yoo xamante ni ñu ngi koy yëkkati di ko a ci daram moom lijjantiwul loolu liggéey rek moo ko ñor bés bu tooyee ca pencum ndaw réew ma ci loolu nag am na yëkkati ay kàddu rek di sax naan kii di Pape Djibril Fall euh, convoqué woon nañ ko euh, foofa ca section de recherche euh, loolu nag kenn xamul luñ ko fa woowe woon waaye nag bokk na ci yenn ci ay problème yoo xamante ni sax amoon na ci déggante ak ki nga xamante ne moom mooy professeur Amsatou Sow Sidibé ci coowal parrainage mu nekk sax yoo xamante ni mën nañu jàpp ne mën na nekk la cause waaye nag dara leerul ci bile convocation kii di Pape na koo xamante ni il est démarche bi nga xamante ne mu ngi koy def waaye nag moom njiital des serviteurs ah, mu daal di wéy rek ah, campé ci li nga xamante moom moo di ay décision am ah, gëm li nga xamante ni moom lay woote mu nekk rek koo xamante ni bés bu nekkee assemblée nationale lépp loo xamante ni rek askan wi ñu ngi koy joytu moom pare na rek ngir daal di koy kaas foofa ca pencum ndaw réew mi moom nag ci loolu la gën a concentré wu que ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di nekk rek ci internet bi di ko yekk lu mel ni xeme kii di eh, Soumboulou Bathily gannaaw mu defoon ab di kaf sax di wax naan kii di njiit réew mi na daal di wàññi njëgu dund bi daal di nay cher lool eh, ci loolu nag ñu jàpp ne sax ak kenn koo xamante ni eh, mën nañu jàpp ne eh, ci parti njiitu réew la bokk nekkoon ab jeune noon rek yàq sumbulu lu mel ni xamee amul lu mu ko waxul loolu nag daal di tax sax ba ñenn ci membre famille bu sumbulu daal di génn sax di wax naan sumbulu am na droit ci loolu muy wax ndax kat bu dundu chéré citoyen yi ñoom ñu problème ci ñi nga xamante ni dañuy daal di génn rek di dal ci kawam ndax kat euh, moom ba muy def bile vidéo euh, ci kaf rek la nekkoon waaye nag euh, ñenn ñoo xamante ni sax dañoo jàpp na ci parti njiitu réew mi lañ bokk rek ñoo génn di attaqué Soumboulou yàq ko lu mel ni xeme wax ju ñaaw ñu daal di ko koy wax ci vidéo boobu nga xamante ni defoon na ko jëmal ko ci njiitu réew mi. tàggat yaram la ñuy jeexale wax ci mondial mille Qatar 2022 mu mel ni nag coowal ITV ak RTS mu ngay wëy ba léegi rek ci lii di 3TV ak sax kan moo war a fësal yi les match mu mel ni nag avocat ITV daje woon nañu tey loolu nag amal ab waxtaan bokkoon na ci kii di maître El Hadj Diouf di rek bokk ci di xeex ñi nga xamante ni sax ñoom ñoo di RTS ak sax ni ñu amee problème ak ki nga xamante ne moom moo di chaîne bi di e ITV loolu nag jëm rek ci 3TV mondial Qatar 2022 Sadio Mané nekk dix meilleurs joueurs UEFA yi ñu tabb moom nag mu nga nekk ci sixième place. ba ah, moom Sadio Mané nag ah, mu doon loo xamante ni sax bett nañu bëri ak sax taxawaay bi nga xamante ni daal dina koy am ci ah, saison deux mille vingt et un deux mille vingt deux waaye nag gannaaw classement bi daal di génn ni kii démb ak sax tirage Ligue des champions bañ doon def moom Sadio Mané il se retrouve à la sixième place mbokk yi safandoon ñu teewlu di leen ñaan a jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal cloche notification a raté dara suñu information jërë ngeen jëf